voilà justement loolu laay wax. ma ne euh, nga jékkee-jékki rek euh, on parle de la clinique Suma assistance. Ah euh, et puis on vous cite dans un dossier politique alors Bamba Fall sonne la charge en disant que. euh, son un de ses agents ouais. Mamadou Ly euh, a trouvé la mort euh, parce que au niveau de la clinique Souma euh, on ne s'est pas occupé de lui il y a eu une il y a sélection euh, boo déggee accusation bu mel noonu qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça parce que moom ñëwul Souma ñun ñoo ko jëli la waxee dans les manifestations on délègue une ambulance qui part pour voir déjà comment ça se passe ah si Tilène foofu il y a eu une bagarre justement très grave entre deux civils oui c'était la mairie des gens en civil avec des manifestations probablement après <laughs> probablement Pastef d'accord donc déjà si foofu la erreur bi amee parce que ñun d'habitude quand il y a un seul euh, mouvement c'est automatique parce que les gens de Pastef ils ont des médecins des infirmiers qui suivent les qui suivent même carrément l'ambulance ou avec qui on a des contacts qu'on peut leur dire attention y a un membre de de PASTEF qui est là qui est blessé et ñoom ils sont organisés ils viennent le prendre en charge c'est ce qui s'est passé pour ce malade là à un moment il devait passer un scanner te ñun ñoo ko jëlee xam nga bon on n'a pas sélectionné koo ñëw fekk fi mu bu leen fàtte aussi dañ ko dóor dañ ko dóor xeer <laughs> donc ça aussi c'est il faut tenir compte parce que euh, e, e, ko fàtte L'autopsie est sortie, on l'a montré que c'est quelque chose qui a cassé. L'autre, bon, dans le dossier aussi, il faut qu'on reste encore dans le secret du, <laughs> dossier. D'accord, mais tout ce que quand même le procureur a dit à la radio, je, me crois autorisé à répondre. Voilà. Maintenant, les fonds du dossier, peut-être que là, Alors, on en parlera de Mais Donc, ko. mais confirmé nga ne ah. bi ngeen demee jëli bi ah. ngeen avant toute intervention. Ah. laaj nañu ko fan la fan la bokk. non jamais. vous n'avez jamais demandé ça ak euh, Mariata Sarr l'infirmière ñoo dem jëli ko on les a convoqués ils sont venus ils ont confirmé qu'ils ont jamais posé cette question et je les ai jamais dit de poser cette question cette question on la pose d'habitude bu desee ay examen à faire mais bi ñu koy defal perfusion bi ñu koy defal ay antalgique Euh, bi ñu koy tëral ci ambulance bi ñu koy transporté ba clinique Souma n'avait pas et ce jour-là il y avait six blessés am na ñeneen ñu njëkk a yóbbu principal après ñu ñor ñu le le parent là euh, le parent les parents qui étaient là on a testé qu'il y avait beaucoup de blessés ce jour-là. mais est-ce que réeroo amul parce que euh, ci première explication yi ngeen joxe da ngeen ne yéen da ngeen di poser question boobu pour régler la question de la de la de la de la prise en charge alors li nga on n'est pas pas du corps médical mm-hmm. mais devant l'urgence de sauver une vie est-ce qu'on a euh, est-ce qu'on doit se donner le temps ah, euh, di laaj nit ki pour lijjanti affaire urgence affaire prise en charge je voulais répéter deux fois mm-hmm. on te prend en charge d'abord mm -hmm. avant de te poser la question. Et si on te pose même la question, ça n'arrête pas les soins. Hmm? fi ñu la koy posé mooy peut-être bu boo waree passer scanner ce cas-là il devait passer un scanner de quatre-vingt mille à cent mille francs ce monsieur-là jëm ci yàlla ji monsieur lii c'est là qu'on a dit qui va payer les scanners bon s'ils prennent là cette question-là comme une participation politique c'est dommage mais seen collègue bi oto yu mbëkkoon bi passé Yacine da du témoin avant ñuy jóge foofu est-ce que posé wuñ ko question Hein? Est-ce que M. Ndiaye n'est pas apparu pour dire monter dans cette ambulance, amener la principale, aller à euh, mais, justement, est-ce que le volet, mercantile, ne prend pas le dessus Est-ce que quelqu'un, boo xam ne dafa am hématome dañ ko dóor ñu war passer scanner pour lui sauver la vie est-ce que war nañu taxaw di di di ko laaj non taxawuñu kan moo war fay taxawuñu la médecine d'urgence mhm. vous garantissez la fonctionnement vital donc moom bi ñu koy examiner avec des médecines aussi léegi ça a bien évolué dafa am ay paramètres yoo xam ne objectif lu ma la wax rek mademoiselle Ndour euh, me plaît me plaît pas euh, je fais ça je fais pas ça tu vois on a des paramètres médicaux la conscience est est scorée scorée ñu koy waxee sax dañ koy dañ koy mesurer sa xel fi nga toog léegi si tu es 15 15 sur le score de Glasgow bu ma ne la xool à la gauche nga xool à la droite bu ma ne la ba di yëkkati loxo gauche nga yëkkati loxo gauche donc ça veut dire que ton cerveau fonctionne. kooku bu ñu la ko defalee ba mu jógee ne espoir bi mu nekk 15 15 ça veut dire que y' a pas d' extrême d' accord mais calculer nañ comme ku ñu dóor xeer sa bopp di euh, toj war nañ la defal euh, perfusion pour rattraper deret biy tuuru war nañ la defal médicament buy wàññi métit bi voilà ci loolu la ñuy. bi ngeen ko jëlee ba bi ngeen ko yóbboo laaju leen ko dara bu ba pare ba médecin bi examiné ko. Mhm. xool ne vraiment fii dafa toj est ce que toj bi fan la yem foofu dañ ko war a passé scanner kan mooy fay scanner bi. man de scanner mais tout ce qu'on a fait nag bi muy àgg foofu tout a été gratuit ah je le procureur a lu la facture bu ngeen lire facture bi ngeen xool que benn ambulance la fay mooy ambulance. mais pourquoi dans un premier temps nga ne euh, dañuy poser question boobu pour xam la prise en charge ensuite nga ne euh, da ngeen am un contrat avec Pastef euh, pour secourir seen seen seen seen seen seen. kii ko wax léegi na génne contrat bi wala ma def ko <laughs> diffamation tout de suite outil 200 millions. <laughs> on n'a aucun contrat hein, avec un par aucun parti public on a des contrats d'agrément agrément la agrément c'est avec les assurances hein les assurances maintenant même ont des logiciels yoo xam ne boo ñëwee carte nga yor ñu dugal carte bi ñu xam ne assurance. donc yow amuloo benn euh, lien commercial avec Pastef Ousmane Sonko li ngay def noonu da nga koy def dans le cadre du bénévolat. de tous les Sénégalais. Ah? <laughs> de tous les Sénégalais pendant toutes les manifestations. les manifestations Ngor yi vous êtes à Ouakam. Euh. à Ngor vous avez vu les images. oui il y avait pas que des Ngorois qui étaient blessés était blessé en plus. mais mais deux gendarmes qui étaient gravement gis nga ambulance bi moo récuré dugal ko ci biir ah laajuñ leen ndax euh, si font partie d'un parti ah, xale yi nekkoon ci biir ñu gazé leen mënuñu nooy gis ngeen ambulance bi mu leen di jëli on a pris même la femme d'un gendarme qui était enceinte ah, jël nañu jabaru jabaru ji jabaru gendarme <laughs> ah bu bu bu bu sori woon ah ñoo ko jël yoo dem yóbbu leen ko ci dans mais, le manifestations fii mon frère mon frère même a on mm -hmm. habite là sama collègue moo ñëw dimbali ma SOS bi ma affaire yu jaaxle ma oo Sami Sami ne ma mënul ñëw dafa may ay euh, ay ordre ay ordre euh, hiérarchique yu leen di tere génn dans les manifestations ah moo ñëw ah nous deux on a essayé de transférer le maximum. mais bi ñu la entendre police. et puis même les premières déclarations yi nga yi nga def euh, argument yooyu fan la fan la jógee. c'est pas sorti ex nihilo. mais Bamba Bamba a voulu politiser l'affaire Bamba Fall c'est un politicien il a voulu politiser l'affaire. injustement. Ah, fan la jëlee papier bi euh, man bu mu ñëwee ne dama am contrat ah wala bu ñëwee ne moom parents yi ne na fekkiwul sax accident bi. À aucun moment il n'était là. Je pense qu'un de ses parents a fait un audio disant qu'il n'était jamais là, qu'il n'a rien, qu'il n'était pas aucun, aucun moment. Hein? Que le malade, on l'a pris sur le lieu de l'accident à Médina taal ambulance buy trente mille quarante mille dem jëli un blessé dugal ko ci oto yóbbu ko mettre que dans un lit médecin examiner ko <laughs> quand même kooku si on ne remercie pas pour ça et qu'on lui demande maintenant tu dois Euh, c'est possible même que du ñun c'est possible que les gens de Pastef sont passés lui demander est-ce qu'il était Pastef parce que samay infirmier samay médecin yu ñu euh, sous la pression de la police sont allés tous à, la police centrale ñu yoroon ambulance bi ñi ko accueillir médecin bi ko recevoir tous ils sont allés à la police ce qui m'étonne nag avec la police c'est que on sort de là-bas il y a pas de décision j'ai eu beaucoup xam nga Bamba Fall mu nekk un homme politique mu génn mu wax mu ah. am volonté politisée yëpp c'est ah. un fait c'est plus grave encore waaye bul fàtte def na aussi dañ ko négligé parce que euh, Pros était là parce que Pros était hospitalisé parce que Pros ah, okay. <laughs> c'est un politicien <laughs> dégg naa on n'a pas le droit de dire président dans un pays il y a pas deux présidents. ah y pas deux présidents du Sénégal benn président moo fi am diminutif qui s'appelle Pros. ah voilà waa këram nee nañu Pros la tudd. ah et yow aussi Pros nga koy woo Pros était là. Ah. Ah, dans quand on kay. <laughs> bu may accusé kay il faut ma delloo <laughs> ay kii. Ah? <laughs> foog nga nee na Pros fi nekkoon doon faj yëpp dañu dañu bàyyi maladie dem di toppatoo Pros. Mhm. alors kooku man mais xam nga fukki nit ñoo fa nekkoon y avait fukki nit ak ñoom ñaar. Mhm. donc douze personnes fukki nit ak ñaar ñoo nekkoon ci clinique bi kenn deewul sur place parce que maa ngi dégg ma loo xam même le monsieur Lila il est pas mort sur place. donc ça ci évacuation am la principal ñoo def autopsie bi ba ba doo joxe certificat de de genre de mort bi waxuñu à aucun moment qu'il a manqué tel médicament qu'il a manqué ça qu'il a manqué ça. xam <laughs> nga loolu tamit vraiment moi ça m'étonne que quand même ce pays là où il vraiment toute la formation tous les niveaux de ressources kon ne s'est pas arrêté sur les choses vraiment pragmatiques. alors dama dama dama doon wax nga nga dagg ma xam nga que Bamba Fall vous accuse waaw ah, c'est sa responsabilité ah. mais quand justice bu demee ba taxaw euh, ne euh, ñu entendre la dem jël ñu ñu ñu dem jëli la arrêté la dem mhm. arrêté la. Euh, recherche de avis de recherche. de lancer avis de convocation. dem ñëw garder la ah. à vue. Ah. Euh, accuser la d'homicide involontaire. Ah. mise en danger de la vie d'autrui non assistance à personne en en danger. c'est qu'il y a une enquête. bu ñu sukkandiku. pour asseoir. Euh, ces ces ces ces chefs d'inculpation. d'accord ah. d'accord c'est qu'il ah, y a une enquête il y une enquête waaw mais est-ce que ah. justice mën na tëb tëb rek euh, jël ay chef d'accusation teg la ko te ci enquête bi amul des éléments yu mën a prouve accusation yooyu à les accusations accusations venant de Bamba et de d'un parent c'est même pas les parents proches mm-hmm. <laughs> qui, qui ont fait ça d'accord un autre parent a dit l'inverse que ñoo fekke wuñ ko xamuñu lu fa xew d'accord d'accord deuxièmement euh, en médecine hmm, en médecine, chaque médecin qui a son autorisation d'exercer, euh, inscrit à l'ordre de médecin, est responsable de ses actes. donc waroon nañu génn foofu laaj témoin yëpp est-ce que gis nañ fa docteur Niang muy piqûre malade bi wala mu di ko examiner wala mu di ko kii. joxe woo ci instruction. laaluloo ko eh, eh, eh, jegewuloo ko. j'ai dit bonjour le jeudi à midi ah yow de sa bopp bi tëj na euh, médecin baa ngi ñëw toppatoo la. je me suis retourné j'ai vu le médecin qui s'en occupe médecin bi ma génn parce que boobu man andi woon añu personnel bi ah, parce qu'on a des travaux là-bas la cuisine se fait à Ngor on les jour boobu liggéeyuma sax moo tax ma ne la ñoom après l'enquête là qu'est-ce qu'ils ont trouvé xam nga bu ñu kii rek mais quand on cite des gros mots comme ça des gros mots ay ay ay wax yu mooy nit ki toog nii nga gestu fële di naan sa ataaya wala di def leneen. ñun on a trois visites déjà malade bu hospitalisé ñetti ñetti yoon la ñuy jaar ci sa chambre ah bu médecin guddi bi di wàcc médecin bëccëg bi di ñëw dañu ñaari médecin ñooy dugg sa sa nekk ne la madame Ndour est-ce que tu as passé mais accusation yooyu fan la fan la fan la jógee <laughs> on est dans un dans un médical vous avez entendu parce que pour Pros parce qu'il est hospitalisé rek déjà on convoque tous les médecins qui sont censés l'avoir touché non man ñëwaguma ci dossier ah, Ousmane dama lay dolli parce que benn ah, ah. ambiance bi la. parce que Bamba Fall bi muy wax ñaar yi la wax. non seulement qu'on lui a aurait demandé est-ce qu'il est de Pastef et qu'on l'aurait pas touché parce qu'il n'est pas de Pastef ku fanaan ci nekk añ fa reer yor sa yor sa portable yi envoyé ay message say say parents parce que kooku yëpp avec la la criminel nu mu tudd euh, avec les informatiques là la police euh, la cybercriminalité peuvent te retrouver sur une simple euh, réquisition de la Sonatel ñu wax la le malade là jusqu'à ce ce qu'il parte mu ngi ci portable am di envoyé message. le malade le Mamadou Ly. il était conscient. Glasgow 15 euh, duggaloo Glasgow 15. Mm-hmm. Glasgow 8 le danger Glasgow bii dañu lay yóbbu réanimation defal la defal la ay tuyaux dans la gorge on a aussi la réanimation même dans ce cas là souvent il y a une réanimation qui existe ou quand le cas s'aggrave on l'amène là-bas d'accord kon bi di jóge souvent il est Glasgow 15 kooku médecin boo dem international nga def expertise day wax ne kii waruñu ko defal dara. mais yow buñ la <laughs> situation judiciaire biñ la biñ la placé. Mhm. da nga jàpp ne y' a pas des éléments probants. Mhm. yu war a justifier loolu. Euh, et donc injustice la. en fait envoyé le message que j'ai envoyé à tous mes avocats ne leen yéen bindaat leen benn lettre ngeen ne euh, Bamba euh, Fall dafa juum du man la gisuma fa Bamba Sall gisuma fa gisuma ko fa <laughs> ah d' accord gisuma ko yëpp. xam nga Bamba est-ce que ma dugg ci chambre bi Bamba accusé na mais boole na ci aussi parce que procès était là dans une chambre et que ñun dañu bàyyi li ñu doon liggéey yëpp euh, topp xam nga Bamba Fall c'est pas la justice. waaw mais voilà mais ah, ouais mais. xam nga Bamba Fall dafa accusé. waaw c'est son droit. mais bu accusation jibee justice. Euh, procureur ah. gendarmerie mhm. dinañu gendarmerie dinañu def seen liggéey mhm. bu ñu defee seen liggéey ñu transmettre mhm. procureur après procureur lancé procédure am euh, yow da ñu bëgg a wax ne accusation yi ñu la teg amul benn élément probant bu ko mën a justifier waruñu ko moi personnellement docteur Babacar Niang déjà je peux pas faire le non assistance à une personne en danger koo xam ne fajuma ko wax naa la ko acte médical c'est un médecin qui a passé sa thèse qui est inscrit à l'ordre des médecins qui est responsable de ses actes médicaux s'il y a négligence voilà. sur la personne de de de Mamadou Ly waaw s'il mise en danger de la vie de de la oui. vie d'autrui parce que nee nañ dossier bi ñu koy transféré joxuñu yónneew ñu médical bi médical donc si y a tout cela ah, ñi ñu ah, war a incriminer selon yow mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ko faj dossier médical mosul faj nit et pas yow dossier médical du faj nit non mais mais mais ñi ñu war a incriminer non je suis dans la médecine aéronautique dañuy évacuer malade dans le monde entier on l'envoie par mail. Ah, par mail wala par WhatsApp wala mais dossier médical mën na dem aussi. Ah, non jamais bu demee dañu ko fa bàyyi bu demee dañu ko fa bàyyi parce que c'est un secret médical qui est même entre médecins dans un secret médical bu ñu ko bëggee lever beneen médecin mooy ñëw man maay continuer yor sama dossier. docteur Ndour ne ma wëy euh, il paraît que tension bi dafa wàcc. mu ñëw informé wu ci dossier non voilà dossier bi tension heure bi ngay wax c'était à 13. wala mën ko attention ah, ah, tu as raison ça a descendu mais on a mis les moyens qu'il faut parce que la médecine aussi c'est une histoire de moyens il faut ñu ne la tension bi wàcce na est-ce que yor nga perfusion bi remonter tension est que def nga ko defuloo ko boo ko defulee ngay am faute est-ce que bi tension bi di wàcce fekkee nga ko wala dafa fekkoon nga toog sa néeg di nelaw ah, ñu ne la fiche bi te la ne heure par heure l'infirmier passe bu amee tension bu wàccee tant que monté wul infirmier bi du taxaw. médecin bi il y a deux médecins qui dorment à la clinique chaque soir. Mhm. ñaari médecins ñoo fay fan. léegi xam nga <laughs> donc le dispositif qui est obligatoire pour la société Soins Assistance qui a créé Soins Assistance dont je suis membre avec ma femme on a mis tout le dispositif nécessaire bu ñu ma xoon de médecin wala que le médecin y avait pas d'infirmier là on est responsable. alors niveau pour tout médecin mm -hmm. qui a prêté serment mhm. la responsabilité mhm. pénal elle est individuelle elle est individuelle donc donc oh. yow médecin chef nga mhm. responsable moral nga oh. propriétaire nga jàpp nga ne bu fekkee ne justice dafa jàpp ne à cause de la négligence du personnel. non pas, non du médecin. non xaar xaar médecin yow personnel. du médecin a démarré bien tout à l'heure nga ne médecin thésé inscrit à l'ordre ma ñëw est-ce que médecin boobu mu nga fóol la nekkul. non xaaral ma ñëw <laughs> donc yow jàpp nga ne. yaa ngi dulier oh. jàpp nga ne jàpp nga ne. accusation yi ñu la teg. Oh. c'est infondé donc bu fekkee ne. Hmm. Euh, négligence am na mise en danger de la vie d'autrui am na. Hmm. Hmm. ki ñu war a poursuivre du yow. la responsabilité pénale elle est individuelle. Mhm. médecin bi ko faj. Mhm. la war a poursuivre. Ah, procureur bi tudd na ko. loolu nga jàpp. procureur mujj na ko tudd. d' accord ah parce que ko tudd parce que moom nee na dañ ñu convoqué dañ ñu dañ ma convoqué bi kooku ñëw déclaré ba pare déclaré te ñëw mooy ñu may seeg a jëli ah kooku xaw ma dañ ko trompé wala mais demeewul noonu la ñu ci ko convoqué ma ñëw ñu ne malade bi est ce que gis naa ko. Mhm. procès est ce que gis naa ko xam nga est Est-ce qu'on est chercher parce qu'il y a eu une, accusation ou parce que Pross était hospitalisé chez moi Mais c'est pendant cette euh, mise en garde à vue que nous traitons le dossier. Donc déjà, <laughs> je ne sais pas les juristes qu'est-ce qu'ils en pensent, mais est-ce que c'est légal ou c'est pas légal parce que yow tudduñu la yow en fait li ñu jàpp officiellement hmm? euh, yow ci dossier Doudou Fall ah. lañ la incriminé mais eh oui mais loolu la wax pendant ah. les, la, la même garde à vue qu'ils ont prolongé de deux jours qu'ils ont voulu prolonger même le week-end hmm? avec l'intervention de de l'association des médecins tous les associations des médecins du Sénégal que je remercie encore que je remercie tout le Sénégal d'ailleurs parce que vraiment ba léegi man damay ay ay soutien yoo xam ne c'est c'est vraiment incroyable <laughs> d'accord ñooñu maa ngi boobu laa dem ba taxañ sama lal di commencer te daal yéen naa bi ñëw ne ma ah je viens d'avoir une bonne nouvelle tu sors le samedi à 22h. et aujourd'hui euh, maa ngi naan euh, <laughs> toi. et tu viendras sur convocation. sànq maa ngi naan dama yor convocation ñu continuer seen enquête. bu mu yàgg ñu ne ma bon euh, on transfère le dossier xam nga mooy yooyu tamit mooy tiital Sénégal diggante na naa lu yàgg ñun ñi defe ne maa nga fa. bu ñu ne la dañ lay xaw ma la nu mu tudd yóbbu yóbbu kaaw nu mu tudd inculpé. Hmm. placé sous mandat d' abord dañ lay yóbbu d' abord en entretien avec le juge d' instruction mu décider ndax daf lay euh, daf lay inculpé wala du lay inculpé il a répété les mêmes causes là que. les policiers avaient marqué d'accord bon nag léegi nag mu ne ma nu may surveiller est-ce que daf may def euh, bracelet est-ce que du ma defal bracelet boobu nag avocat dañ koy fekk avocat yi ne ko kii médecin la day dem di faje ay nit dans leur maison avec de la euh, le secret médical qui y sied day toog bureau di consulter ay malades euh, c'est c'est pas vraiment admissible que qu'il qu'il qu'il ait le bracelet. bracelet. parce que euh, je, rectifie maa ngi naan da da nga am bracelet donc finalement na euh, joxu dafa luñ la bracelet mais dañ la placé sous contrôle. sous contrôle judiciaire voilà, tous les vendredis da ngay dem mois mhm. da ngay dem signer. Euh, pour attester de ta présence dans le territoire national alors dafa am ñoo xam ne très difficile médecin buy évacuer malade tous les jours dans le monde entier. bon y aura le même problème d'aller en Gambie <laughs> dafa am ñoo xam ne euh, soit dañ leen doon euh, transférer à Rebeuss soit ñu jox leen bracelet électronique. Mhm. yow nii la nii l'autre. la contrôle judiciaire. sous contrôle judiciaire. judiciaire je vous dis c'est pas le premier cas qu'on a eu de. de d'accusation de, de non-assistance en personne. mais kër mais vous n'êtes pas tiré d'affaire sama kër la nekkoon je je je vois man daal je suis plus tranquille qu'aujourd'hui xaw ma demee lan mooy sa sa problème <laughs> mais man. Euh, vraiment ouais, vous avez bu fekkee bu fekkee loi def. vous avez un dossier judiciaire en suspens. mais d'accord mais politico politico médical. d'accord mais vous n'êtes pas tiré d'affaire. vous êtes sous contrôle judiciaire où y a des magistrats qui ont appris la, la loi. Mm-hmm. qui mhm. vont demander à un expert à quel moment celui-là était euh, xam nga loolu mos a ñu dal xam dans la salle de saalu kii bi saalu jugement bi le juge n'a même rien dit juge bi dafa posé question témoin bi à quel moment la ñu bàyyi madame Ndour tout seul le témoin même a dit non madame Ndour non non dañu doon def ay perfusion di dugg ci néeg bi di génn di def ay bouteilles fii di def ay bouteilles jour boobu xam nga kan moo jugé affaire les gens qui étaient dans l'audience <laughs> ñoom ñëpp ñoo jóg mais ani ani assistance non assistance en personne en danger Le juge a levé la séance. Le lendemain, il a donné, il m'a donné le droit de, de les poursuivre pour dénonciation diffamatoire. Mais, mais pour. pour, eh, pour non, déglu rek madame. lay wax lu neex. donc ñun ñoo amoon droit poursuivre les gens ñi ñuy accuser. ça s'appelle euh, dénonciation diffamatoire. Hmm? d'accord mais bés boobu dañu ko baal parce que malade bi dafa romb souvent ne leen fii laa yaakaar dafa am feneen fu ñu ko bon a yóbbu ñëw foofu dugg malade bi moo tax jusqu'à présent mosuñu. porté plainte à aussi man organisation bi nekk suma ba ñoom témoin parents yi mën a ñëw loolu ma avocat yi di wax sax neen bul wax parce que boo waxee peut-être ñu jéemee contourner li ñu doon def mais témoins yi fa nekk gëm yàlla wala impuissance séance audience ou juridiction dafa bëri doole mhm. boo calculé woon tey da ngay fen wala nga def sa manigance noo ko defee. mais ni le juge bi di poser ay questions am na fen mënatul fa am. Mhm. fen mënatul am dans. mais mais vous êtes placé sous contrôle judiciaire mhm. et que dossier euh, Mamadou Ly mhm. bu ñu ko enrôler mhm. di nga di nga di nga comparaître même si vous estimez que liñ la teg c'est injuste mais je vais pas rester les bras croisés du ma toog bras croisés léegi on est en train de monter un dossier pour annuler l'accusation de d'homicide involontaire non l'accusation de euh, kii Faye de comment ça s'appelle de Bamba Fall Bamba Fall ki nga accusé mu tudd Babacar Niang laalul sa malade fekkewul sa malade donc dindil turam ci sa accusation waaw mais euh, accusation Bamba Fall lu ñu weesu la aujourd'hui c'est la justice qui vous a placé sous contrôle judiciaire qui vous accuse d'homicide à la demande de qui oui mais Bamba Fall même bu demandé s'il n'y a pas d'élément probant justice mënu la mënu la dara on m'a pas notifié un élément probant mhm. de non-assistance de mise en danger et pour la simple raison que nekkuma fa woon ku fa nekkul mais loolu procès moo koy déterminer ah, voilà mais loolu moo tax ma ne la man sama xel dafa jàpp nga ne boo leen demee. ci procès sama xel dafa dal bu ñu laajee euh, mbokku Bamba Fall yi doon fanaan ci néeg bi est-ce que Babacar Niang dugg na ci néeg bi benn dañ la wax ne mosul dugg ci néeg bi <laughs> comme ren li ma la wax est-ce que bind na benn ordonnance de pour Bamba Fall bind ko. dossier médical bi ñu boobu dañ jox nañ leen ko sax parce que boobu quand y a le secret médical peut être peut jox nañ leen dossier bu dossier bu ñu ko liiree à Z jox ko médecin bu jàng ne ko ban moment ci dossier bi lañ ko joxul garab bi ñu ko war a jox ban moment lañ ko war a wuti la seule difficulté qu'on a c'est de trouver une place dans un hôpital hmm? hôpital boobu sax gis nga moom bi muy dem hôpital xam nga foofu kan ma ko wutal place <laughs> madame dégg nga kan ma ko wutal place bi muy dem hmm. Bamba Fall wax na ko hmm. nee na euh, ministre de l'intérieur ministre de l'intérieur moo négocié avec le général général Dieng pour ñuy soog am place alors vous comprenez donc ça c'est une ambiance que vous trouvez au Sénégal pompier ambulance pompier dañuy wër ñun sax ñun day loolu moo tax ngeen doog a day jël kii foofu la ñuy déparé. alors dem déposer ko vivant bi koy déposer à l'hôpital il était vivant. alors <laughs> pour clore loxo à aucun moment.